asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. sëriñ bi noo ngi lay ziyaare noo ngi lay ñaanal tey ñaan nga ñaanal nu noo ngi ñaan ci sunu borom tabaraka wa taala mi nga xamante ni ni dara tawu ko te lépp a ngi ci loxoom yàlla na nu wan kiimaanu gudd fan ci sa jëmm dem ànd ak wér akuk tal ba lii la mag ñi bàyyee nga di ko sàmm yàlla na ko jofal ci anam ba gën a rafet te nga yóbbu ko fu gën a kawe fa mag ñi doon mébét di fàttali rek bokki taalibe yi bis bii nu jëm ci sunu kanam muy guddik ñaar fukki fan ci aw tamxarit di bis bi sëñ Tuubaa ñëwee Tuubaa dëkkaale si ak boromam ci taxawaayu Cheikh Mouhamadul Moustapha sëñ Moussa waxoon ni juboo naa ak boromam ci képp kuy fanaan ñu jéggal say bàkkaar waxoon ni bu bis bi ñëwatee na ñëpp fanaan si Touba ku yor yaari mbubb na la jaral jaay mel na ma ku am loo ma bëgg a jox te denn ak mbokkum tali mu bëgg a ñëw te mënta ñëw jox ko mu paas ngeen ànd ñëw li ngeen jox saxaar gi ak li ngeen ma jox ma def ci sa ñoo yem ci man soxlawuma alal yi rooyi la bëgg ñu fanaan si Touba daal ni yitte ju jar ba ñu fanaan si Touba guddi asiré na muharram suñu borom sàkk sëriñ bi bis bii moo tax nuy waaj moo tax tey nu teew fii ci sa kanam di yeesalaat sunu pas-pas di fedd layaat sunu jaayante ngir dëggal waxi Cheikh Mouhamadou Moustapha joojee mu waxoon ni bis bi na doon at mu jot ngeen di ko def nu fas yéene nag foofee mu ci tegoon tànkam xàll wam rëddoon doon ko defee ñu wéyal loola loolu lañ bëgg bokk yépp bàyyi ko xel ci bis la boo xamante ni buñ ci teewee ñun ñëpp dañoo war am yëg-yëg mel ni ku fekkee woon bis bu njëkk ba ca guddi àllarba googee moom ngi fanaan ci cër yu yaru xol bu yàññ yitte ju kawe suñ digg ak borom ba tax na noonee mu ko daan defee sëñ bi loolu lañ fas yéene jàpp ca duñ ko te duñ ko bàyyi bu mukk mooy nam doon jàngaloo alxuraan ca jumaa ja ñeenti kamil ci barabu sëñ Tuubaa fukki kaamil ak ñaar ci mihrab bi fukki kaamil ak ñaar ci biir jumaa ji ges bu mu waay bu mu xaddimaat ci biir jumaa ji istixfaar salaatu ala nabi leneen lu ca waay man nga def dan ko daan def di ko yemale ci suñ biir ren dañoo bëgg taalibe suñu tubaay yëpp wàll si ci ñoo xam ne noonu la ko suñ Muusaa daan defee màggal gi doonul ci pénc mi rek doonul ci pénc mi rek waaye dañoo bëgg ñu xam ne foofee sëriñ bi tëdd foofa la ko daan defee te bëgg nañ nit ñi kenn ku nekk teewe defin wa ngir yaakaar ci la suñ Moussa doon wax ni ku ko fanaane màggal ci noonu suñu borom jëggal la say bàkkaar loolu lañ bëgg ñu bàyyi ko xel bu baax a baax a baax ci bis bu màggal gi noonu lañ koy defee te du yàq dara nag ci mbooleem barab bi sëñ Moussa yi lañ fa daan def dara du ci soppi fenn fu ci nekk lañ fa daan def njaboot nga koy def ñoo nga fa te it jëlaat nañ seeni i matuwaay ci gën a taxaw bis bi ndax amuñu bis bu gën a rëy bis bi amuñu yaakaar ju gën a dëgër suñ gannaaw bakkan judul Sëñ Tuubaa kon sëriñ ci pas-pas yooyu ñu am ak yitte yu kawe jooju yi nga xamante ni nii taalibe moom lañ laxasaayoo fas yéene lëggeel Sëñ Tuubaa noo ngi ñaan nga ñaanal nu sa boroom te am nañ yaakaar ci ni boo ñaanee yàlla dana nangu ndax yàlla kat mi ngi xool waaye xoolul ñëpp mi ngi dégg waaye dégluwul ñëpp waaye am na suñu yaakaar ak rafet njot ci ni suñu borom teg na la bët ndax ki nga wootu ci jataay bi nu ngi am yaakaar bu baax a baax itam ni suñu borom mu ngi lay déglu ndax ki nga toogal ci ci barab bi te suñu yitte yëpp aju ci moom moo tax nu bëgg nga ñaanal nu suñu boroom mu dox suñu diggante ak mooy yàlla mooy yàlla ci boppam na suñu borom aar sànge ñu ci ba dëtuñu ci tab bi ba mukk te defal nu wërsëg wu lew woo xam ne du ànd ak mbew aku njëggal ban man la liggéeyal sëñ Tuba ndax sëñ Moussa daa waxoon ni jamono ngi ñëw joo xam ne bañ ca doy nag jaamu yàlla damaa jàpp ni jamono jooju daa tàmbale ndax wërsëg yi bari na te bunt yi muy jaare bari na te nit ñi fi mu doon ni booy xool sëñ bi da ngay jàpp ni nit ñi dañoo màmm te fiñ màmm jëm dëppawut ak fi sëñ bi joxoñu ñu ci bari loolu lañuy bañ ñu bokk ca te am nañ ci yaakaar lu tax itam mooy boroom Daarul Muxti yi daa waxoon ni kër gi moom képp ku ko yilif ñaari at koo dimbaliwut dalaa neex moo tax sëñ bi nu lay tàllal loxo nun amuñu fa neen fu ñu jëm yaakaaroon fenn sëñ Tuubaa rek lan yaakaar fii mooy sunu cër te wóor na ni li ñuy wut lépp am na ci barab bi sëñ Mbàkke Madina julli na ci kër gi ci jàkka ji génn jiitlante ak ma Matar Diop cum ñu jëm ci biir kër gi laata muy dugg ci biir kër gi mu ni ko gees ni ko mataar mu ni ko mbàkke mu ni ko li ñëpp bëgg te jaayut xam nga fu mu am sëñ mataar ni ko ah loolu moom fu mu am ak ku ci bëgg nooy def sëñ mbàkke mat na joxoñ ko biir kër gi ni ko mi ngi ci biir mu ni ko ku ci bëgg nooy def mu ni ko topp ci suñ gannaaw te nun leer na ne topp seen topp nañ seen gannaaw xamuñu nag topp nañ seen gannaaw ca nan ko war a toppee waaye suñu bëgg ak suñu pas-pas ak suñu pëstéef mooy topp suñu gannaaw seen gannaaw ca nañ ko war a toppee donte matuñu leen ay taalibe noonu noo fi nekk nooy seenu njaboot nu bëgg ngeen dimbali nu ngir jëmmi yàlla mbooloo mi nag a ngi nii soxlawun saafar sun ni jox ñu di ko séddoo wala koccub suuf bu ñuy def ci ndox wala ñu di ko cof di joxewaat abdallah doomu seex sidee daa waxoon sëñ Moussa ne ko danoo bëgg nga jox lu turu yàlla wi la fi sa baay bàyyil ma jox lu turu yàlla ci yi ma fi sama baay bàyyil sëñ Moussa ne ko nun sun baay bàyyiwu fi turu yàlla lim fi bàyyi ci sunu jëmm la ko def lun xool mu mel na nanu neex jàpp na ni su ngeen nu bëggee dimbali te jublu noo dimbali bala noo jóge ci barab bi dana am dimbalul yàlla loo xam ne dootuñu ñee kenn ci te gis naa taalibe bi sëñ Tuubaa def dara wala ñu nettali ko sëñ Thierno Diouf Lambaye ca ngeen gi new daa ànd ak Alaaji Cheikh Touré romb étage sub jàmbur ni ko seex mu ni ko Mbàkke mu ni ko bëgg nga bi mu ni ko waaw mu ni ko ma may la ko mu ni ko ah étage sub jàmbur bi mu ni ko boo ko bëggee ma may la ko mu ni ko bëgg naa ko mu ni ko may naa la ko may naa la étage bi weer lañ ca teg ñaari weer tubaab ba ko moomoon ñëw ci alaaj Seex Touré ni ko kër gi damay ñibbi France léegi soo ko bëggee ma jaay la mu ni ko yoruma dara mu ni ko seetal rek loo fi yor mu ni ko un million laa fi yor mu ni ko indi nga xam ni kon te loola ka ko def ci doole sëñ Tuubaa la ko def yéen nag li ngeen doon ci sëñ Tuubaa moo tax ñu xam ne man ngeen lu ëpp loolu noo ngi ñuy rek wasalaamualeykum wa rahmatullah